ñëwoon fii ci centre dispatchingu Mbao muy béréb bi nga xam ni lépp lu ñuy togg ci courant fii lay koy xoolee ni nangamu courant ñu ngi koy togg waaye bu ñu xoolee tamit jumtukaay ak xarala yu bees yi fi nekk dinañ xam ni ci jamono jooju ñuy toggee courant dinañ gis ni am na lu ñu soxla ñi dëkk ci kër yi ak ñiy liggéey ci usines yi am na soxla ci courant lu tolok nangami mégawatt waye lu jitu lolu duñu xaar ba togg ba nopi wala wara seddelé liñu togg di dora jël dogal dañuy euh, anticiper li yo tubaab di wax anticiper lata bobu dinañ xol def ay analyse gestu saytu ni kat bu suba wala ci ayubis bis ñuy ñëw xamna naa centrale yi dinañ togg nangam ci ay mégawatt courant te ci biir Sénégal yëpp dinañ soxla nangam ci mégawatt courant léegi diggante li ñuy togg ak fañ koy jëfandikoo war ko faa séddale fii la ñu koy décider mais séddale boobu dañ koy séddale ni mu gën a amee ni mu gën a amee économie loolu la ñuy wax ni dañ ko war a def ak yaxanal donc lu am solo la ci liggéey et li ma ci gën a rafetlu mooy yeesal bi nga xamante ni yeesal nañ ko jumtukaayu Senelec di félicité bu baax ci son excellence monsieur le président de la république Macky Sall ki nekk ci boppu société bi di Pape euh, Mademba Bitèye di liguey liguey bu am solo waaye bokk ko ak ñu am solo takku di liguey ngir sen rew ba taxna tay gis nañ bi président ñëwee jox leen ay jumtukaay jox leen ay matuway jox leen ay ndigal jox leen ay tektal taxaway bi nga xamanteni ñing ko doon xaar ci ñom gis nañ ko